maire bi di nga xam ne moom leen doon génne keroog ca kër ga mu nekkoon. Mhm. moog jëkkëram dund nañu sëy nañu. moog jëkkëram 40 ans. man maa ngi tudd Soxna Mariam Diallo. dama nekkoon ak sama borom kër. nekk nañu 40 ans de mariage. ñuy ay mbokk nag it lool. mu jur xale yi ñaari yoon ñu yoroon ko toppatoo ko bu mu am liggéey mu ne dafay fay bor. daal mu jékki-jékki. commencé indi ju ko. yàgg na yàggul waaye nag ma ko doon muñ daawoon dégg aussi muy def ay menaces ne day jaay kër gi dem France ba un jour benn tantam dégg ko ni ko boo ko jaayee doo ñëwee du ma la fat ah, ba yàlla def na un beau jour rek man dama daan daw di liggéey su ma ko laajee dépense yi mu ne ma aw ma sama liggéey doxul sama rakk ma bàyyi ni ma dawal ngay liggéey may gàpp sama di dem di liggéey Maroc Dubaï fu ne ma ma dawee bala may ñëw lu ma am yónnee su ma ñëwee toppatoo kër gi ak xale yi dawal nga jënd say garab comme moom na laa toppatoo toppatoo sa bopp may daw di jënd samay garab yor sama bopp sama kër di toggaaleel nag sax ay ouvrier boole laa daan togg añ sama doom bu moo daan jëli añ lu ma am nag def naa ko ci këram bu mu jeex takk sama doole sama lépp jeex na ma jeex ci dugg daal ci affaire u caaxaan duggee ci affaire u caaxaan am ku mu nekkaloon nekkee moom avant done kër gi dootul nag léegi dara du dara beneen jigéen bu mu nekkal ñëwatul ci kër gi presque heure tardive lay ñëw bu ñëwee jàpp bunt yi duur fëgg saaga ñu yuuxu lu ne muy def jàpp sama bunt fëgg ma ubbi bu ma ubbee du fanaan ci man saal ba lay ubbi dem tëdd ci ma tëjaat sama bunt trois heures du matin mu kittewaat léeg-léeg sax sama doom bu ndaw bi ko mujj da ko naan waa papa heure yi nga jóg xamoo ko trois heures du matin ko topp ba jour bi ñu xamee ne ki mu nekkal jigéen la kooku tam bi ñu waxtaanee moom lu mu wax faa bi moo ma topp tuñ de teel porte oto bi bi kër gi yëpp yow muy yuuxu allahumma salli ala sayyidina wooy di def ko neex taxaw sama buntu menacé mu ne loo ma dara kër gi dañ ko génn dama koy jaay sama mu jigéen moo ko moom waaye man fi ma tëdd tëju du ma génn du wax benn yoor yor chef de quartier indil ma convocation fekk maa ngi taal nii ba toog mu ñëw nii ba pare jox ma feuille bi ma ne ko ni ma signé ma ne ko déet bala may signé xam lan la ma xool gis demande de divorce xam jour beeg yëpp ma door a signé jour ba aussi ma dem bi ma demee tribunal ñaata yoon juge bi recevoir nañu jéem ñoo réconcilier mais li ci bu ñu demee ah man bu ñu demee dinaa ne juge man sama sëy rek a ma tax a jóg ndax à l'âge de 19 ans laa nekkoon ak moom ba léegi tey waajur moomu ci dugaloon ma ni ko man sama njaboot laa am mënuma toog ba heure bi sax di def leneen ak leneen mais moom bu ñu waxee danaan carrément moom bëggatul bëggatul di ñu fag sosol lu kenn mënta wax dañ koy dóor dañ koy saaga lii lañ may wax te ñi mu naan sax dañ koy door ñooñu dañuy rey paa bi ci boppam moo demande divorce këyit yaa ngi nii ma yor ñu ñëw un beau jour ñu ne kon prononcé nañ la divorce divorce mais à son tort léegi nag juge bi alloué ma 2 millions bi jugement bi génnee ma xool man tam 40 ans ku ko nekk ak nit ah sa yaram bi yépp tas na wératuma gis nga ma léegi war a yor sama bopp tey ci 2 millions faju sama traitement yëpp sama añ ndéki comme moom divorce naa man ba pare ma xam doyuma ma demandé appel bi ma demandé appel nag mu ni ma def nga appel mais di nga torox di nga perte sax ñaari yoon ndax man ay autorité yu mag ñu may jàppale ci réew mi ma ni patt wuyuma ko biñ demee appel bi aussi tamit ah li mu wax am na ndax bi jugement appel bi génnee léegi dañ ko changé moom jox ma man toor bi ni man maa ko tooñ ndax dama koo saaga donc man la ñuy condamné par ma fay ko franc symbolique bi ñu indee loolu xale yi ñu ni nañ leen jox kii par mois mais avant le 5 de chaque mois. Mom, mom, ñu ñaar euh, am nañu bant. mais invalide. ay handicapé lañu yow won seeni gis donc ñu ni il faut mu yor cent cinquante à partir de, de, de avant le 5 de chaque mois. mais mom da mu ñëwé tribunal mënalu ko décision tribunal du ko respecter. chaque jour 10 francs lay joxé heure bu ko des fois damay minuit du jot dara. lépp. heure bu ko neexee lay yónnee léeg-léeg mu toog deux jours sax du ko yónnee mais ma bàyyi noonu rek pour daw coono. d'accord bi euh, léegi moom deux millions yi tur naa pour benn yoon la wala da da dafa nekkoon luy continuer par mois. non non non benn yoon définitivement sama giirub dund. waaw dédommage ma sama giirub dund ma xam ne nag léegi mënu ma cee kii ndax deux millions léegi dara la du dara te samay garab cher na cher goo xam ne chaque mois je cinquante mille par mois. sama añ ak reer ndékki fu may dëkk ak ndox ak courant ma daal di looloo taxoon man ñaan appel moom avant ñuy prononcé divorce bi bu njëkk bi ci la paa bi génn kër gi la veille avant ñuy def délibéré ci premier jugement bi la paa bi demoon gisatuñ ko xamatuñ fu mu ne ba mu def na 15 jours daal ci àll bi ba 15 jours yi mat veille 4 avril la fanaan si ci kër gi 10 heures ci guddi tëju ci saalam ñu toogaat ba mu une semaine paa bi demati mujj chaque semaine paa bi day dem du ñu xam fu mu ne ba yàlla xiir ko ci ñëw ba mu jege nag mu disparaître complètement moom tam bi ñu demee aussi bi ñu prononcé divorce bi dañu moom xale yi munu leen a yor tey mënu leen a yor ëllëg man seen yaay maa leen mën a yor léegi aussi tam bi ñu demee Euh, le 5 avant le 5 de chaque mois mu ne du ko appliqué ndax moom 10 000 francs lay joxe ak nu mu ko neexee nu mu ko mënee 10 000 francs mën naa ci mën a xëy doom yor ko par bis jënd ci añ reer ndékki ndugg yépp ak samay gaz samay garab garabu xale yi fan la mën a nekk ci jamono ji mais ba tey ma jël samay rakk bu mu kee jàppale ma sama doom bi bu dafay jàpp ci li ci des nag ah, ma taxale lu tamat ma toog ko déglu mu ne ma carrément da ngeen torox jaay naa kër gi te kër gi dangeen ko génn demee divorce bi prononcé bu njëkk la taxaw sama buntu nee guddi ma tëdd mu ne ma pëng pëng pëng ma ne bëri mu ne ma génnal kër gi kër jàmbur nga nekk ma ne fat mun ma kër gi jaay naa ko sa moroomu jigéen moo ko moom xale bi ma nekkal moo ko moom bi ñu toogaatee aussi tam ba demaat ci yéy bi cour d'appel bi ñoom ñu rejeté jox ko bi yoon dëgg kon daan condamné franc symbolique ak jaayu kër gi aussi mu waxaat ko ci la door a jóg dem seeti avocat fekk bien avant boobu sax damay toog yoor yoor rek mu jékki-jékki ñëw débarqué ànd ak ay nit bu ñooñu ñëwee daan ni ma waaw huissier tel la huissier tel maître tel man ko yéen man bu leen ma jaaxat man dama yor ay malaat xaw ma lu xew ñoo ngi tribunal pareeguñu te ñi dañoo feebar bu leen leen perturbé ndax dem naa ñaata yoon impôt domaine mën a sa ndax kër gi jaay nañ ko su ma demee ñoom impôt domaine bi nekk ñu ne ma egseegul kër gi kenn jaayu ko ma toog ba jour bi ñu demee seeti avocat bi maître Ndeye Fatou yóbbul ko dossier yëpp toog mu ni comment ça que ñoom dans un premier temps ñoom ñu jox la dëgg gi nga dem appel pour réclamer dommage intérêt ñu yokkal la ko léegi ñu jël ñoom tool bi jox la ko jox paa bi dëgg mu ne ma lii maa ngi koy door a gis pour injure mu ma injure fu nga ko mën a vérifier ma ne ko mën da xaw ma day faat ni ma léegi dossier bi nañ ko yóbbu cassation ndax ñu àtte bi mu nekk dëgg ñu àtte waat ju jalgati na dem cassation actuellement dossier bi mu ngi cassation waxaguñ ci dara. seen divorce mi ngi cassation. waaw mi ngi cassation. dem nañu ci euh, impôt yi demoon fu nu war a dem ba ci notaire bi yëpp dem nañu ban def recherche yi ba na xamal ni kër gi un certain Alpha Diop moo ko jënd bi muy bëgg a dem màkk woo na suñu benn dëkkandoo ñëw ne ko dama bëgg nga témoigner mënu ko lu ko kuy dem màkk ko lu xew mënu ko kër gi dama koy jaay ko looy wax mënu ko je l'ai vendue à une dame man ni leen du ma génn bi ñu demaatee avocat bi mu defee dem ci notaire bi maître Ismaïl ni kër gi ko tudd Alpha Diop lañ ko jaay opposition vente parce que njaay mi mënut a egg te demuñu tribunal ba xam ne mu mel te et puis xale yi état bi ñu mel moo leen war dëkkal dëkkoo leen te bien unique la yoon mayu ko mu jaay ko bien unique la tiimaa looloo am. bu ñëwee ba ci diggante bi nag la jéem a dugal ay kayitam comme liñ la wax mi ngi nii sama saag ma yor ay këyitam yoo xamante ni daal ay at de yoo xam ne mais lebe lañ ko binde te paa bi ci boppam écriture paa bi la moo ko bind ci loxol boppam man xam naa écriture am ndax ku nekk ak nit 40 ans xam nga léppam wut benn xaritu benn bakkanam kenn ki nekk témoin fii kenn ki nekk témoin fee biñ demee aussi avocat bi xool ni lii logique wul. li nga nekkal pendant 40 ans xam nga ko bu lan moo ko war a motiver. parce que comme dafa am ko jigéen mu nekk nekkaloon xale bu jigéen bi paa bi daf ko diggoon ferme boo xamante ni ñoom ñaar projet bu ñuy bokk liggéey la. 9 hmm. millions 950 mille. Euh, mooy booru Ross Béthio boobu. am na benn bis mu tàggu ma dama damay dem Ross Béthio dama fa am xawma lan pour expertiser oto. ma toog di ko xaar keroog bu 3 heures du bi mu ñëwee laa ko tegal reeram ndekete booba demul woon ci loolu xale bi la àndaloon ni doon wëri ferme ba booru galo yaa xawma Ross Béthio. ndekete foofu la demoon ah biñ demee aussi tam ah ku dig nit yooyu som foo ko mën a jële doo gi rek nga ko mën a jox te xale bi aussi biñ ko woowee ko moom confirmé na ni paa moo ko topp loo ci mën kon ça veut dire que am na ñu toog aussi am benn bis xale bu jigéen ma message wari man xool ma woo sama doom bi ni ko man de dama jël ñaari message wari mu ne ma ah kooku daal ko loolu amul man maa kii ma dem ba ci borom wari ba ma ne ko vérifier ma man mag laa ba xam mu ma mii ñaari eggul la ma ne ko ah bon donc tey fas léegi yëg na ko mu daan ne amul ma ni pat ëllëg sax ma dem police jëppal déposé fa sama plainte te bi comme kaaka xale bi wari bi may envoyé di ma tooñ ndax xale bi dafa envoyé comme dix mille francs la tribunal dogal di ma ko moom mu di ma ko jox moom paa bi mu wax ko xale bi xale bi di bëgg ma koo envoyé di ma ko tooñe moom xale bi retiré waat ko yóbbu police jëppal eh, ñu convoqué ñu léegi bi inspecteur bi mu convoqué ba ñëw toog comme nii ma relaté ko les faits après inspecteur bi ni ko yow mu ne munu ko da nga xam diw munu ko waaw sama gal la dama koy takk inspecteur boobu njaay la tudd ni ko yow kii sa soxna la da ngeen a am ci jigéen la war nga koo suturaal ak quelque soit alpha lu mu ko tontu non non dañoo nekk tribunal daf ñuy divers kooku ni ko même bu